abonné leen ci yu wér te wóor ab la boo xam ne yëkkati woon na ko mu jëm ci ñu tolloog ñaar te liggéey yi yëpp woon depuis daaw bu dem euh, Kër Kàpp di fa gis bassin boo xam ne bu yaatu la bu tolloog foog juróom-ñetti hectare boo xam ne xare loolu foo naa ne du liggéeyu benn fan du liggéeyu ñetti weer am loolu nañ ko depuis daal ñu siy gërëm tamit sëñ bu baax te foo naa ne suuf soos moo ko teg ci loxo nguur pour ñu mën ko def ñaareel aussi foo naa ne gis nañ ko muy ci wàllu canalisation foo naa ne sooy wër réew mi xeetu canalisation yu bareegul ndax soo xoolee dimension 2 mètres de 3 mètres maanaam doomu aadama soo taxawee sax dañ lay seet kon yaakaar naa ne lépp pour drainer ndox neewuñu nag projet bi yëpp pare na waaye am nañ si yaakaar ne euh, suñ ko mettre en service dina wàññi lu ci bari mais en attendant nag pare foo naa ne ONAS war nañ jël ay matuwaayam engagé wu na pour def li tubaab bi tuddee ay mesures conservatoires notamment ci surtout Ngiraaneen ak Ngélémou ndax xam nañ ne bassin de rétention pour nga def ko ci ba mu pare xaju fi waaye comme nañ defoon daaw foo naa ne nañ ko def ren def ko benn système de pompage jëm koo dugal ko ci réseau bi mun na dem ba kër kàpp loolu foog naa su ñu ko defee dina soulager quartier tool noonu leneen nag mooy surtout point wu yi bi dañ ciy insisté waat ndax non mën la waaye day am conséquence si dem beeg digg maire Touba jàmbaar la ndax fu mu amee woon dina jël ay camion di pomper mu dem mais day jël ay fan yu bari te yaakaar naa ne euh, màggal gi génnagul ci nawet bi kon foog naa ñu régler problème bi bonne fois pour même si c'est une conservatoire boo xam ne moo gën efficace nañ ko def ndax électropompe jafewul teg ko fa def ay flexible mu ko station Shell ba foo naa ne mooy li gën le temps que nag terrain boobu ñuy wax ça appartient en particulier mais nañ xool également des raisons sécuritaires est-ce que foofu en pleine ville def un bassin de rétention wala leneen est-ce que na ma ne wax ngeen ko peut-être station de pompage mën na ne mais en attendant ndax loolu mënugul mënugul pare fii ak màggal électropompe jël ndox mi dugal ko ci réseau bi mu dem moo gën a efficace te gëm naa ne moo gën a moyen coûteux loolu foog ne point la boo xam ne nañ ko saytu pour xool vraiment nañ ko mën a defee dëgg la la ci des nag mooy ci wàllu ndoxum naan forage yaa ngi fi moom ñu ngi sant wax mi ngi dox ah am na yeneen yu bees yu foor def muy juróom waaye nañ continuer dispositif defoon daaw mooy fexe ba population aussi fagaru maanaam root réservoir yi bien avant màggal mais nañ ko def jamono boo xam ne aussi dem beeg dikki bi day yomb ndax su yéexee ay fan dem beeg dikki bi day xaw a jafe biir Touba kon loolu également au niveau de l'OFOR dispositif boobu nañ ko def du ji lool mais mieux nag nañ aar également nag réservoir doo yooyu ndax seetlu nañ ko parfois dañ ci am ay xale yoo xam ne dañuy dem ci biir kon loolu également dañ ciy profité ñu wax également askan wi. réservoir yooyu ne biir kër aussi nañ ko jéem a ba mu ba nga xamante ni bii loolu ci wàllu maintenant dispositif sanitaire on a région médicale wax na ko dañuy reconduire di fi nekkoon rek ci wàllu poste avancé ak jumtukaay yi nga xam moom la war a àndal muy ambulance ak tout le personnel qu'il faut l' entretien des routes ñi ngi ci mais ñu demandé àddalu rek ñu gën koo accéléré ndax xam naa ne di des fi ak màggal euh, bëreetul wàllu kaaraange ça, je pense, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le cœur des métiers, mais force de défense et de sécurité. te mu nekk un élément essentiel euh, parce que lépp loo xam ne ay doomu aadama ñoo fay daje rek foo naa ne état moo sasoo assurer la sécurité des personnes et des biens rawatina nag màggal gi nga xam ne seen une dimension internationale donc jumtuwaay mi ngi fii doomu aadama mi ngi fi li ci des rek mooy toujours di ko lëkkaloo ak la comité d'organisation du grand magal de Touba ndax am na aspect yoo xam ne suñ jaar également adu ci ñoom it am na yitte yoo xam ko pour accompagnement ñuy demande rek au méthode d'organisation bi jàppale leen si d' abord seeni nekkin am jafe ak également seeni dundin bu am solo moo fay moo fay ñëw yaakaar naa am nañ si yaakaar bu nekk jafe-jafe du Touba la ca des rek nga xam ne tënk nañ ko tey dinañ ko def ndax naa du yàgg ministre de l'Intérieur woo également réunion au niveau national mais incha allahu rabi suivi bi nañ ko doon defee daaw mooy àllarba bu jot ñu jël benn benn secteur xool fan lañ ci tool mu bañ a yem rek ay kayit nañ dem sur la daaw defoon nañ ko moom la ñu tuddee woon les mercredis du grand magal de Touba mais incha allahu rabi aussi cette année on compte le faire muy secteur yi nga xam ne moo am impact direct ci organisation magal bi muy ci wàllu tali muy ci wàllu ndox muy ci wàllu assainissement mu ne ci wàllu wér gu loolu foog naa ne ko ànd ak ñi nga war nañ ko war a àndal saytu ko teel alerte ndax c'est ça aussi l'objectif nekkul rek dem xool mais du ñàkk ñu gis foo xam ne ay rëq-rëq la ñu teel koo jubanti su dee du au niveau régional au niveau central ñu alerte au moment qu'il faut yi nga xam ne ñoo yore ñoo yore solution bi am nañ yaakaar ne suñ ko continuer suñ boroom mun nañ ci defal euh, ndam ndax nag borom bés bi moom mun naa ne waajal na ba pare dañuy jéem a rek dem cee teg loxo barkeelu loolu moom liggéey bi ñu ci nekk boobu yaakaar lañ ci am te gëm gëm boobu lañ ci am donc nañu sant borom bu baax bu ñu may aussi mun na may ñu kàttan gën ciy tegal loxo rek foo naa bu dem donc loolu foo naa ne loxo boobu ñuy ñi ngi ñaan engagement yi nga xam ne moom fi yëpp suñu borom may leen kàttan boo xam ne di ngeen mën a barkeelu ci bés bi de lépp loo xam ne fas nañ ko ci rek suñu borom ak borom bés bi nangul ñu ko surtout nag def ci jàpp gis nañ bu baax si mun taxaa incha allah li liggéey ñëpp teg nañ seen bët di ñaan rek suñu borom jàmm jooju baaw te sàttal ci nga taat baax sëñ Bass di ko teg sa nga jottali ko njaboot ak membre comité d'organisation bi ci teew te incha allah lépp loo xam ne nan nañ ko def rek war naa ne dañ koy ànd di ko yëgoo am na si yoo xam ne nag ci wàllu kaaraange am na jotaay yoo xam ne dinañ ko ci toog di ko waajal nañ ci si waxtaan yu jëm ci wàllu drone yeeg ak laissez yi lépp daal am nañ si beneen jotaay boo xam ne incha allah bi nañ ko woote nga xam ne boobu nag ñun ak takk deeri kese ñoo koy séeq mais lépp rek jëm ci li nga xam ne mooy mooy waajal bés bi ah di jéggalu nag encore une fois ci guddaayu ndaje bi waaye bés bi moo moo ko laaj te bëggoon nañ kenn ku nekk rek àddu ci képp koo xam ne aussi teew nga fi te jëloo kàddu jàpp leen ne liggéey bi moo ko laaj mais nekkul ne sa teewaay amul ci woon solo mais am nañ yeneen jotaay yoo xam ne